bisimilah asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna santaat yàlla julli si sangu-sang yi Seydina Muhammad jàmm bu xeebu mooy ñëw di waxaat Sénégal ak dañuy soññaat di ñaan kenn ku nekk ci kan bi nga xamante ne moom lañ jëm muy kan 2024 bi ni ko yàlla defee woon ñu gañe ko 2022 bi te mu neexoon lool ci ñun kenn ku nekk tuur xeewal yàlla ko yàlla defaat ren ci loolu ñu ngi ñaan kenn ku nekk mu def faatiha ñetti salatul fatiha teg ko si at euh, loxo sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mu tamponé ko yegal ko jox ko yalla pour que sa ñaan sénégal jël ndam dañu tapé xol yi mu jouer ci fair play si njëkk ak teranga comme ni xamé won sénégal nañ def tempo tempo ba jëlaat coupe bi indi ko mën na ne mën na ne suñu boolé xol yi boolé xalaat di ñaan saa su ne mas def fatiha sal tetti salatu fatiha yene ko ci bindam gannaaw bi ñu yéenee ouverture kan bi yàlla ya may ya sénégal ndam muy consécutif mën na ne ñu dab gaay gaay ñu ngi doog am problème ndax sénégal jël na coupe incha allah nañ ñaan yàlla des xéewal di jëlaat coupe bi jërë ngeen jëf sama gaay nañ ko partagé ñëpp jot ci ndax rafet na ñëpp na amin ndax xam ñu ban lamiñ moo am barke euh, na kon nag na ko ñëpp def ku nekk si sa diine ci beneen diine aussi mën na ko def sénégal la seen ñu daanu manko wuti ndam li من ليلا قب